buenos días a todas las gente. Eh, eh, eh, comenzamos eh, por, di, por decir las personas, creo que todas las personas que han eh, participa, eh, participado han la formation de reparación de telefonía, de teléfono móvil. la iniciativa pour parte del presidente, el señor Basirou Sey, Oumou Diop, miembro del grupo de asociación de, personas con discapacidad física. sobre todo la organización que se llama ANAMU y el Haji Sow, miembro de dicha, de dicha asociación, que han a la realización de dicha formación. Porque las, las per, a las personas de lograr su especialidad como reparadores de móviles en lugares determinados. y evitar euh, de pedir delitos a la calle. Así eh, promover sus actividades, integrarse a la sociedad para disfrutar de su suerte y ganar la vida. Han, han saludado también Sri el secretario general, el señor Ndiaga para la gestión de, de finanzas, es decir, euh, Hacienda. Khayri Diop Oumou a Diop alors Oumou Khayri a bokk ci association des personnes vivant avec un handicap ñu accompagné leen ci anam bu amee relation bi ay partenaires di leen jàppale pour ñu gën a amal seen bopp ñu leen wax ñu ko contre ci eh, eh, waaw avant tout dañuy sant yàlla di sant tamit El Hadj nga xam ne moo am initiative boobu noonu mais di sant waa moom mi nga xam ne moo ko dooleel tey ba ñu mën a am journée bi surtout waa chambre de commerce aussi ñu yaatal ñu de chambre de métier yaatal ñu may ñu tey ba ñu mën a def foofu formation bi ci condition yu favorable yoo xam ne tey wax dëgg yàlla amuñu fa woon benn problème def fa suñu première euh, fois bi nga xam ne def nañ ko mu durer quinze jours ñu ñëwaat defaat fa encore deuxième phase bi mu durer waat 15 jours muy loo xam ne tamit réussit la si ñun appuyé na tey bépp handicapé boo xamoon ne tey yaa ngi doon toog wala nga doon xalaat tey naan lan laa war a euh, out comme métier tey jii nii mën naa ne dimbali nañ ñu ba ñu xam ne kenn ku ci nekk boo génnee fi di nga am ci loo xam ne fi di nga mën a jàppandi ko daal. def formation lan nga waa benn en tant que jigéen sentir naa ci sama bopp bu baax a baax ndax yombul tey nga doon jigéen di def formation genre formation yi en général góor ñi rek lañ ko xamee woon kon tey suñ demee ba mën cee gis suñu bopp tamit dañuy sant formateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñu former motiver ñu wan ñu carrément métier bi du métier ji góor rek mais métier góor la ak jigéen kenn ku si nekk boo ko gëmee rek mën nga ci réussir daal. yéen sant yàlla la ndax lii dafa sut suñu njort xalaatee wuñ ko woon nii réussite la ndax tey dem buñ mënee dem ba ñi nga xam ne ñoom ci ñoom lañ doon xalaat ne ñoom ñooy ñun ñooy ñëw si ñoom di tàllal loxo wala di defarlu ñoom ñu walbatiku wëlbatiku retourné ñëw si ñun. di ñu defarlu kon sant yàlla la daal ndax foogeewuñu ko fa taxaareewuñu ko fa woon aussi daal kon bu ñu ñëwee tey jii ba mën a wane suñu bopp si ñoom kon dañuy sant yàlla bu baax a baax. kon lan ngeen di wax euh, yi nga xam ne ñoo ngeen dëkk bi tey lu mel ni yéen dañ leen bàyyi woon rek ak seen bopp ñu yaakaar naa ne lii moom ku mu yeewul dootoo wooti ndax tey avant tout gouvernement bi la waroon. kon bu demee tey bi nga xam ne benn citoyen moom moo wëlbatiku moom def appui bii nii dina permettre xanaa képp koo xam ne tey lancé un appel képp koo xam ne tey yaa ngi ci gouvernement bi jëkkee ko ci président de la république mu xam ne handicapé yi ci société bi la ñu bokk am nañ ci wàll aussi te ku ñu jàppale ñu demal suñu bopp ndax ñàkkul lu ñu mën dafa fekk ne dañu gisul luñ jàpp rek mais suñ ko gisee yaakaar naa dinañ war a mën a demal suñu bopp daal ñu gën waat formation yi formé ba pare ñu def comme nii euh, appuyer ñu ba nga xam ne formation boobu du doon formation buy nul. Buenos días a todos la gente. Eh, eh, eh, comenzamos uh, por, di, por decir las personnas creo que todas las personas que han eh, participa, participadas han hecho la formation de réparation de telefonía, de teléfono móvil, han la initiativa pour parte del presidente el señor Bassirou Sey y Oumou Khairy Diop, miembro del grupo de asociación de, de personas con discapacidad física. Sobre todo la organización eh, que se llama eh, ANAMU y el Haji Sow, de dicha, de dicha eh, a la réalisation de dicha eh, formación. Porque la, las per, a las personas de lograr su especialidad como reparadores de móviles en lugares de, de, determinados y evitar de pedir delitos a la calle. Así, euh, promover sus actividades, integrarse a la sociedad para disfrutar de su suerte y ganar la vida. Han, han saludado también Sri Yang, secretario general el eh, eh, señor Ndiaga Ndiaye la gestión de, de finanzas, es decir, eh,